Euh, inondation am taximaan yi dañuy bàyyi tali bi yéeg ci passerelle fi nit ñi di jaax loolu yëpp doon lu doy waar ñu koy coowee taximaan yow loolu loo ci noo ko gisee. Ah, waaw loolu day am na parce que taximaan a ko def mais <coughs> am na ay yoo xamante ni euh, comme li taximaan bi def loolu lañ def parce que ba je me rappelle am na benn AD sax sooy bi taximaan bi jëlee am na AD boo xam ne ci koom la topp te jàpp ñu euh, AD boobu daal moo tax loolu xam nga taximaan rek la ñuy bëgg a yàq seen der mais taximaan am yoo xam ne duñ def loolu. taximaan dafa weexu donc lu parce que passerelle boobu ngay wax mais du taximaan rek moo yéeg ca kaw. am na am mais y' avait deux taximaan awo ak benn voiture blanche voiture blanche la. te tamit yéen jigéen bu romb ngeen mais c'est que taximaan bi moom la numéro feeñ. ki nekk si devant bi mais keneen ka des ak particulier bi leen topp pourquoi ñooñu jëliñu seen numéro yi ñu ñu dénoncé ko. waaw ñu ngi naan taximaan yi dug na fii gën na fii wante ki nga xamante ne taxi mooy métier am na loo xamante ne moom du ko def. wante am na ñoo xamante ne tey dañu yor seen xaalis jënd seen oto ñëw jënd taxi pour di def naka su doonoon man temps est passé dégg naa ñuy naan am na benn ivoirien boo xamante ne taxi man la te am na kooku taxi taxul mu jóg am na leneen loo xamante ne moo tax mu jóg. daa ñoo xam ne nii loolu dugg ci taxi yi mais bokkunu ci taxi yi ñooy def dagaay yooyu rek dégg nga ma la ñooy def dagaay yooyu. ku jóg ñu jox la permis taxi loolu du yoon loolu moom ànduma ci waaye du ñëpp la même suñ garage bi fii nii ak ñi ma xam man ñi nga xëy ni ñoo bokkul nekk fii wax dëgg yàlla mosuma cee gis kenn koo xam ne que mas naa def na ko sudul liggéey boo dem nag am na ñoo xëy ni jaar yoon am na ñoo xam jaar yoon loolu yàllaa ko dogal yàlla moom moo ñaa doomu aadama ñi lañu mat ñi duñ duñ mat koo xam ne nii dem na ci affaire banditisme dem ci lépp lu ko neex ba jóge ci day daal di dem régler permis après nga xëy gis ko mu yore taxi xam nga loolu nag doonul luy régler situation bi parce que fi mu toll nii sanction yi aussi dafa dese sévère ci nous le conducteur non pas taximan seulement partout conducteur yëpp laay waxal parce que sanction yi nga xam ne mooy dox dafa dese sévère te actuellement Sénégal toll na foo xam ne nit ki lu ko neex mu def laisser ale bi dafa ëpp te il faut ñu régler situation bi ci sanction yu sévère mais sentiment actuellement toll na foo xam ne mënatul régler situation dëkk bi. taximan yi dañuy yàq seen der mais du yoon yàq seen parce que sa waaye nit ñi am na yoo xam ne dañuy def lu gën a loolu te di waxuñu leen loolu xam naa ne yàq der la ñuy def rek mais du maanaam sa waaye loo xamante ni lu taximaan def ñun daal nañu gën a góorgóorlu rek ñun taximaan yi ak chauffeur clando yi bépp ku doon chauffeur daal war nga gën a góorgóorlu kon mbokk ya xarit yi tey lii lañ leen indiloon fii ci Leuz TV ci seen rubrique du jour